mbokk internet yi nuyu na leen ne leen daal nag jàmm ginnaaw coow bi nga xamante moom moo xewoon ci yi nga xamante ne ne moom moo di recours bi avocat président Ousmane Sonko yi déposé euh, moom moo di radiation bi ñu radié président Ousmane Sonko ci liste électorale yi union des magistrats Sénégal bi nga xamante ne moom moo njabootee magistrats du Sénégal yi dafa génnee ab communiqué ngir ñaawlu ak nakarlu li nga xamante ne agence judiciaire de l'État bind na ko ci ab communiqué bi nga xamante ne euh, jëmale na ko ci nga xamante moom moo di juge Samba si Faye mi nga xamante ne moom agence judiciaire de l'État dafa jàpp ne dafa am benn mbokkam bi nga xamante ne jege ñaale la ci ki nga xamante ne moom moo di euh, président Ousmane Sonko loolu warul nag moom agence judiciaire de l'État jàpp ne moom juge Samba Sy Faye warul yore li nga xamante ne moom moo di dossier bu ñeel recours contre la radiation du président Ousmane euh, Sonko moom nag li nga xamante ne moo di communiqué UMS bi mu ngi naqarlu lu baax a baax li nga xamante ne moom euh, agence judiciaire de l' état daal di koy bind jëmale ko ci nga xamante ne moom moo di euh, juge euh, Samba si Faye moom UMS mu ngi xamal ne bu fekkee ne moom agence judiciaire de l' état dafa am li nga xamante ne daf kaa nakari ci li nga xamante ne noonu la audience bi doxe yoon am na ay voies de recours yi nga xamante ne may nañ ko ko pour mu daal di joytu foofee li nga xamante ne jàpp na ne juge bi Samba si Faye doxali na ko te waru kaa doxale loolu waroon nag moom communiqué UMS bi mu ngi wootee ki nga xamante ne moom moo di agence judiciaire de l' mu daal di samante bu baax a baax ak li nga xamante ne noonu la yoon digle bu fekkee ne euh, nit ki am na lu nga xamante ne loolu métti na ko wala naqarlu na ko ci li nga xamante ne euh, euh, beneen partie bi doxalee na ko te mu jàpp ne waruñu ko doxalee noonu ñu leen di fàttali nag li nga xamante ne moom moo di tribunal grande instance bu Ziguinchor dafa daal di jël dogal ngir delloo ki xamante ne moom moo di président Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom moo di euh, liste électorale yi ginnaaw bu ñu ko rajee maanaam ginnaaw bu ñu ko. ginnaaw buñ ko génnee ci li nga xamante ne moom moo di euh, liste électorale yi ñuy xarani nag ana fal la li nga xamante ne moom moo di euh, coow bi nii euh, bi nga xamante ne moom moo dox diggante ki nga xamante ne moom moo di juge Samba Sy Faye ak li nga xamante ne moom moo di agent judiciaire de l'État nara mujjee ndaxte ci beneen côté bi tam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di avocat lewal li nga xamante ne moom moo di nguur gi ñoom dañoo def recours fii nga xamante ne moom moo di cour suprême ngir sakku ci li nga xamante moom moo di cour suprême mu daal di nenal li nga nga xamante ne euh, moom moo di dogal bi tribunal grande instance bu Ziguinchor jël daal di ko euh, jëmale ci ki nga xamante ne moom moo di président Ousmane Sonko mi nga xamante ne ñoom tribunal grande instance bu Ziguinchor mu ngi sakku ñu daal di delloo ki nga xamante ne moom moo di tour président Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom moo di euh, liste électorale yi ba xam ndax li nga xamante ne moom moo di euh, cour suprême dina dëggal li nga xamante ne moom la moom la tribunal instance bu Ziguinchor jël ci dogal bi nga xamante ne moom moo tukkee ci tribunal grande instance bu Ziguinchor bi nga xamante ne euh, coow li bëri woon na trop trop keroog bi ñu ko doon càmbar foofee ci Ziguinchor comme coow bi nga xamante ne moom moo doxoon diggante moom agent judiciaire de létat ak ki nga xamante ne moom moo di juge Samba Sy mi nga xamante ne moom agent judiciaire de l' état mu ngi doon sàkku ci moom juge Samba Sy pour mu daal di dellu ginnaaw ci euh, dossier bi nga xamante ne moom la yor parce que moom agent judiciaire de l'état dafa jàpp ne euh, moom euh, juge Samba Sy dafa am benn mbokkam bi nga xamante ne jegeñaale la ci ki nga ne moom moo di président Ousmane Sonko donc moom agent judiciaire de l'état jàpp ne moom juge Samba si mënul yore dossier boobu wala warul doon ki nga xamante ne moom moo di juge bi nga xamante ne moom moo war a càmbar dossier bi ñu mel ndaxte ñu xaarandi ba xam ndax moom li nga xamante ne moom moo di Euh, cour suprême dina dëggal li nga xam ne moo di tribunal grande instance bu euh, Ziguinchor wala dina euh, nenal li nga xamante ne moom la tribunal grande instance bu Ziguinchor jël ci li nga xamante ne moom moo di dogal pour delloo euh, turu président Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom moo di euh, liste électorale yi ak nu mënta demee moom euh, union des magistrats du Sénégal di UMS mu ngi sakku ci ki nga xamante ne moom moo di agent judiciaire de l'État mu daal di sàmmante ak digg li nga xamante ne loolu la yoonu magistrature santaane waaye tamit muy sakku ci ki nga xamante moom moo di acteur judiciaire yi ñu daal di sàmmante wala di respecter li nga xamante ne loolu la réglementation judiciaire santaane waxtaanee ci ñoom ñi nga xamante ne ay acteurs lañu ci li nga xamante ne moom moo di euh, justice waaye tamit ñu joxante euh, cër seen biir ndaxte ñoom ñoo ngànk li nga xamante ne moom moo di euh, li nga xamante ne moom moo di justice donc mbokk yi li ñu la ne indil tey ci li nga xamante ne moom moo di communiqué bi nga xamante ne moom Union des magistrats génnee na ko ngir ñaawlu li nga xamante ne moom la agence judiciaire de l' état bind ci ab communiqué jëmale ko ci nga xamante ne moom moo di euh, juge Samba si mi nga xamante ne euh, jàpp na ne moto yore li nga xamante ne moom moo di dossier bu ñeel li nga xamante ne moom moo di recours bi avocat président Ousmane Sonko yi déposé ci tribunal grande instance bu Ziguinchor mu ñeel li nga xamante ne moom moo di recours contre radiation euh, président Ousmane Sonko ci liste électorale yi mi nga xamante ne moom la avocat yi déposé woon foofee ci tribunal grande instance bu Ziguinchor moom tribunal grande instance bu Ziguinchor mujjee jël ab dogal ngir euh, ñu delloo ngaan maanaam ñu yoon delloo ki nga xamante ne moom moo di euh, président Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom moo di euh, liste électorale yi li nga xamante ne moom mooy may président Ousmane Sonko mu daal mën a bokk ci jongante élection présidentielle bu février 2024 fii ak li nga xamante ne moom moo di cour suprême di statuer ci li nga xamante ne moom moo di recours bi avocat état bi annoncé ne nañ ko fa daal di déposé fii ak Euh, li nga xamante ne moom moo di euh, cour suprême di génnee dogalam ñu jàpp ne ki nga xamante ne moom moo di euh, président Ousmane Sonko tribunal grande instance bu Ziguinchor delloo na wala sàkku na pour ñu delloo turam ci li nga xamante ne moom moo di liste électorale yi ñu leen di jox dig daje boobu ne yoon ci jox yenn jotaay xibaar incha allah.